tey nag tey loolu si si conférence de presse bi. tey conférence de presse bi tey ku fi ñëw am chair de poule tey retrouvaille la tey vraiment mën naa ne famille APR la jeunesse d'APR est en famille aujourd'hui tey bu ma fi ñëwee vraiment même si que ni salle bi dafa xat ñu bëri dugguñu mais retrouvaille la ça me rappelle en 2011 université d'été 2011 daf ñuy rappeler en 2012 suñu première université d'été bu ñu jëlee pouvoir. tête une figure fi vraiment sont des jeunes yo xamné yi dañoo japp ci APR liggéey ci APR def ci lo xamné li bu kenn ñamewul woon tuddu président Macky Sall bu kenn ñamewul woon ñëw ci APR ci lañu ñu nekkoon ñu dem ba amone division ba tay yalla def ñëpp waat ñëpp togaat sur une table vraiment pour que parti bi ñu waat ko pour que vraiment ñu doon ben lool vraiment fierté la en tant que jeune fierté la pour le président de la République Macky Sall

en politique nous avons beaucoup de vision mais nous avons vraiment le dénominateur commun l'alliance alliance pour la république le ministre Mame et de son sont des frères et sœurs loolu foog nit ñi xam ko mais politique nak di nga am idéologie di nga am ko xamne mom nga gëna amal affection mën nga am ko nga mais la jeunesse d'APR la jeunesse de l'Alliance pour la République c'est une jeunesse vraiment unie dans le sens que nous sommes président Macky Sall lañuy lañuy ki politique mom moo ñu ñor moo ñu tax ñuy yëng ñuy son ñuy sacrifier wu di ci def suñu énergie suñu temps suñu xaalis ça veut dire que c'est quelque chose qui est en nous mais idéologie kër sax di nga gis ñaar ñi ñooy gën a ànd ka ñaar ñe yaay dina jur ñeent juróomi doom di nga gis koo xam ne kii doom bi la gën a déggal ko doom bele loolu la rek wante vraiment APR hein, ce sont ay jeunes yoo xam ne yu compétent lañu ay jeunes yoo xam ne yu engagé wu derrière le président Macky Sall te fu ñu jëm muy élection législative yi nekk benn rek moo ñu wax surtout à Dakar man je fais appel à la jeunesse de Dakar que vraiment que nous doon bien liguer pour vraiment que département de Dakar ñu jëlaat ko amé la région de Dakar ñu jëlaat ko amé les sept sept députés yu nekk département Dakar daf ñu soxal daf ñu ñor ñi di wax opposition bi di wax Dakar rek tax ñuy wax mais Sénégal y a 45 départements Il y a 45 départements et 45 départements yi coow li lépp Dakar la man damay ñaan en tant que responsable politique en tant que membre de la Cogère nationale en tant que membre de la Cogère départementale de Canel, en tant que tamit ressortissant de Dakar ñun une activité Dakar la que jeunesse de Dakar bi doon benn dóorandoo deux parce que Dakar daf ñu ñor Nous di wax partout c'est parce que Dakar dañ ci faible faible faible parce que élection locale division faible, faible, faible, mais commune bu ne ci euh, liste APR faible, faible, da ngay xam faible, faible, ñun pour que man côté Bob vraiment j'y tiens en tant que jeune du parti que région de Dakar les quatre départements que surtout département Dakar ñu donne Ben am liste vraiment liste parallèle tamit c'est à éviter président Macky Sall barki Dembo Ndiaye ci réunion Benno Bokk yakar bi wax na ko fa ne du accepter liste parallèle lol tamit il a raison ñun en tant que jeune dañ ko ci wara jappalé man su ma gisee jeune di wax responsable tel na doon député avant responsable tel donne député nous en tant que jeunes nous voulons être député si ce n'est que politique quoi mais politique am jeune yu mbay su nekkee diplôme am nañ ko su que niveau am ko man su may gis jeune di xeex un responsable qui a tout

département bu vous mun nga fa bien benn wala ñaari jeunes nga xam ne ils sont capables nekk ci liste ils le méritent encore xam nga mun am capacité bi te un mérite bi mais département les 45 départements du Sénégal département bu ne di nga fa mun a am benn wala ñaari jeunes dina am capacité bi am mérite bi pour bokk ci liste bi mais ñun nañ njëkk xeex loolu ba pare suñu xeexee loolu ba pare doog vraiment di wut leneen man loolu laay ñaan appel di remercier vraiment aussi le président Macky parce que lui su un meilleur homme ok en tant que responsable du parti yow tey naka naka le fait que euh, madame Babou nangul ou wala madame Babou pas mu ci siège bi. non non, pas c'est une sœur ne euh, bu la ñi dañoo loolu doo nga taxoon man mii di wax sax salle parce que je suis venu en retard dama amoon une activité que ma doon def ci don de sang ci laa jóge ñëw man mii salle bi sax ma dafa peut-être la prochaine fois ñu wut des lieux yoo contenir ne dina nationale. Il contenir la cogère nationale yenn salle yi day indi problème ay salle 300 places 400 places pour euh, euh, conférence de presse wala réunion cogère nationale problème il lay indi c'est problème de place la man mii accédé à ma salle te pourtant def un sacrifice jógee ville pare sama liggéey ak sama coono jël taxi mais accédé ma sax ci salle bi vraiment il faut que nos responsables certains événements yi su ñu am salle contenir des salles de plus de 1000 personnes fi ci jeune ëpp nañ ñu wut salle nous problème bu am ak kon du am salle place parce que c'est ko gère certes yaa dee di nga gis ku ñu nommé am ministre wala député wala kii toog mais fii suñ fu ñëwee on est de la même pied d'égalité on est tous des jeunes on est tous des responsables ku njëkk ñëw yaa jël place toog keneen soo ñëwee it ngay toog man mii di wax accédé wu ma salle bi tellement que salle bi dafa xatoon. peut-être prochaine fois nous wut salle 2000 personnes pour contenir l'Assemblée générale Cogère nationale ou bien conférence de presse Cogère nationale parce que nous avons vraiment besoin de visages, visage peut-être dans le net ci Facebook bi avons ñuy de commenter. Mais il y di commenter manifestation une conférence de presse vraiment ça nous a permis de nous revoir santé, sant neema sant aussi pour préparer l'élection le 30 juillet parce que l'élection le 30 juillet l'élection boo a ni premier tour 2019 ku nekk responsable APR nga nekk jeune il defee loolu sa bopp rek il nga xam ne élection du comme lu dit, ñi président c'est un président le choix lui revient peut-être s'il choisit il va mettre. parce que des fois il y a des inconvénients au niveau man département Kanel y a des choses yu ma jot a dégg loolu su amee dinañu metti des personnes yoo xam ne du capacité bi du dara mënaluñ la dara ñu bëgg leen tapp bàyyi la fi wala bàyyi keneen lool day metti côté tamit maa ngi ñaan le président au moins qu'il ouvre ses yeux qu'il demande tout le monde but nit ñi lëre des responsables ñëw ne ñooy responsable di ko indil ay list liste yoo xam ne ñi wóor nañu wóor ni yàlla il ne mérite pas d'être député loolu tamit day metti Mais métti ci xol en tant que responsable jeune que sur le terrain di parce que on n'a pas erré Nous y des gens qui ont erré pendant quatre ans élection député nous nous ça nous fait mal Nous, chaque jour on est là matin midi soir on est là Nous, sommes sur le terrain ñu ngi nous net bi ñu ngi ci avec nos moyens de bord avec mais nous nous vraiment nous surtout les jeunes de la région de Matam surtout les jeunes du département de Kanel amuñu poste politique bu ñu am ñun les jeunes du département Kanel pourtant tout le temps on est là la causerie départementale Kanel amul kenn ku ñu jël dugal la fi amul kenn ku ñu jël dox la benn poste élection député à ngi mais nañu fàttali ko la jeunesse départementale de Kanel liste yi dañ ci war a bokk yàlla nag moo xam ku muy tapp man de maatam ba lépp ci loxo yàlla laa ko teg si su content de député femme départemental si su êtes dans les normes vous n'avez pas de que deux mais politiquement les gens font lu mais les pour manquer koy que ci le matériel lu mais candidature moi, je sais qu'en tant que responsable je bis au niveau départemental de canel vais poser ma candidature je veux je laisse à l'appréciation du président de la république man suis au niveau départemental de Calais. amul ben responsable bu fa bu ñu ci président parce que man su base nous sommes base su fit sacrifice def ci say ci parti bi ko président Macky Sall même pas deux semaines ou trois semaines bu président suñu suñu commune au niveau de pont gangue Soule j'ai fait mes moyens mes propres moyens laa ci def luñ ma jàppale matuma sax essence su Dakar dem foot je me suis sacrifié def ci des millions té ñom ils ont des postes jël sen jël sen xaar def ko sen poste ci def lu leen neex lool nak bëgg la motam des fois on me dit Matam tu te fatigues pour rien mané ko non je ne me fatigue pas pour rien tant que j'ai l'amour de le faire tant que j'ai l'amour du parti tant que j'ai l'amour vraiment de travailler pour le parti té duma ko yëg dama koy def vraiment je lance un appel au président de la République Macky Sall qu'il fasse très attention au niveau du département de Canel par rapport au choix surtout des femmes surtout des femmes parce que lu ñuy dégg lu ñuy ça nous arrange pas suñu député président validé dinañ ne du ñëw bakki Demba Ndiaye ci parti bi nekk transhumant am fi mandat député en PDS def fi dara amul bilan amul dara mu buggaat ñëw fii ci APR ñu koy jox suñu poste député loolu je dis non moi bi je dis non le reste nag c'est le président de la République le président de notre parti qui va choisir.